ma cant gi yéete ku bëgg sëriñ sooy bu defal nii sa loxo sëriñ sooy ci boole du may waqliyati ala qayda ko may abu wal khaymun waaw sëriñ sooy bu moo nu ci boole du may baaraama cant gi yéete ala qayda ku bëgg sëriñ sooy bu defal nii sa loxo zone balaanu te mbooleetu wax leen sëriñ sooy bu moonu ci mbooleetu mooy borom cant gi barama alquran de sëriñ sooy bu ma nu ci boole du mooy barama cant ku bëgg sëriñ Mbàkke asoo baax te waaw sëriñ sooy bu ma nu ci boole du mooy yarama cant ge wax leen bu ma nu ci boole du mooy barama cant ge ku bëgg sëriñ Mbàkke asoo baaw de waaw sëriñ Mbàkke asoo nu ci boole bi ma yaaya cant gi sëriñ bay sëriñ saawam sëriñ aso asoo nu ci boole du ma yaaya cant ya, gi maaleykum salaam wa rahmatulah maa ngi tudd soxna Momi Sène dëkk daru salam kër maam soxna maam Marème mi waaw bis bi moom dafa alaadoo me ndax soxna mam mareem bisam ni rek la war mel ndax mamam ju bax ja serigne soye borom alxuraan ji mom lay defal bis sering cheikh say moy bayam waye nak serigne cheikh say bi mu ko juree serigne soye bu jur ko mom mi soxna mam musa mbake day yaayam soxna mam musa mbake nak serigne mbake asu moy bayam serigne mbake asu serigne modou mamoun serigne modou mamoun mam Cheikh Anta mam mareem tubaarkàlla bete bete mbake mbake la ndax dafa judd ci càllal ak daru salam càllal ak serigne sëriñ bo bu ba bàyyi kër sëriñ bu yaayu daaru salaam boole ci yaayam mamam du jigen di sëtub maam Mor Jaara soxna May mbacke mi jur soxna Mam Musa mi ko jur maam Mor Jaara ay Sehab ndax cheikh abdou Latif moy bayam serigne abdou Latif maam Mor Jaara mo jur nak soxna mam marem mi di def bis tay soxna mam Musa ma ko jur mom la lay wax bala mo ñew ci soxna mam marem soxna mam Musa soxna may yaayam soxna may sing Abdou Latif sing Abdou Latif mam soh Jaara soxna may momé ko jur soxna mam Bousso seigne Mbàkke assou moy baye mom soxna mam Bousso ba pare seigne Mbàkke seigne Modou Mamoun mam Cheikh Anta maam Anta Sali bokk ak sëriñ Touba lepp mam Rem mi seigne seigne Cheikh Say moom seigne Soye bu khalifa seigne Soye bu di way juram keroog bi way juram di dem kër mom soxna mam Bousso di dem kër seigne Cheikh Say na bu man mi la andalon ba mu gëna jamono mom mi motax dara umpuma ci affaire am te lu yeungu ci mom yaayam daf may wote lepp sama lox ndax xamna ne bañuy and ànd maa ay ñoon ñoo maa sa jamono ay tout lañ won ñun ñep ñu yóbbu kër Cheikh Say mu am fa soxna mam rem mi di def bis ñing koy ñaanal nak fan wu guddul lool bu and ak wér balay sa buddu serigne Mbacke maaram ma buddu soxna bu serigne ci bari serigne Cheikh Say na bu serigne Soye bu serigne Soye bu serigne Touba Mamour ante sele mam Maaram mam bala essa ki ko doon waxale ray bi mam Cheikh Anta maam Mor Anta Sali maam Maaram muy bette bette Serigne Touba ñaari yoon maam Mor Jaara ak maam Seex ak Serigne Touba ñoo seq maam Rem nga ni ma la ko waxee maam Jaara mooy mooy maam moo jur maamam maamam mu jigéen maam jaaraa ko jur mi bokk ak sëriñ Touba lépp waajuru góor ak waajuru jigéen maam Seex moo jur maamam mu góor moom mii mooy mooy maay maamam mu góor wëlbati ku doog a ñëw kër Serigne bu surtout fa Serigne Touba ak mam Cheikh Anta ak mam Mor Diarra ñu sekk soxna mam Rem kon maam Rem mii bu toge fi ni day defar bi bis ñukoy and ak mom at mu nek mbokki talibey ñew diko di fekk ci fi dañuy ñaan yàlla na sax sax natu ajara ak ajara ndax mamam ma gonte won ñoro mamu ndëri kër ma bajaxu ba ma sha allah natu ajara ak ma ñaañu ajara ajara ko me dunay ma baak maamur wàkk mi ci soo ma ak ma njaay addu ak moyal lu ci lek bu gexé mu re soxna rem ndax soxna maram ba mi jur mamam du ma keur mab ba jaxu bala juke won woon mab ba jaxu bala ñu andi ko keur borom sam mu am fa soxna asu maram ba soxna asu maram ba mo jë ñëw am fa serigne modou am am fa serigne bakki asu mi jur yaay mom mi non la demee moy càllal ak mam Cheikh Anta gi mu doog a ñëw kër Touba kon dañ koy ñaanal bisam bi na ba fa mu bëgg a na fa ag diko ñaanal wajuram wi ak sëriñ xaadim mi nga xam ne moo leen boot tubaarkàlla ba mu jógee kër baayam ñëw kër suñ xaadim mii baayam tubaarkàlla dara dara dara manqué wut fépp fu ko suñ seex say waroon teg rek suñ xaadim teg na ko fa jox na ko cërub kër sëriñ tubaa gi ba mu jeex takk jox ko kër cërub kër borom gaawan ba mu jeex takk ñi mu dëkkal ci kër gi jox ko cër def ko doomi barkeelu kenn ñi mu wut a wax maam Mareem ca kaw kenn mun ñi mu koo yuuxu kenn ñi mu koo def dara ndax suñ doomi barkeel la ñu koy ñaanal fan wu gudd ndax surtout seex soowee bu ko am danga koy teg ca kaw bàlle sa yàlla na yàgg yàlla na sax te xale yu jigéen yi nga xam ne ñii ay doomi ndeyam la ñii ay doomi bàyyilam ñii ay mbokkam yàlla nañ dund ñoom ñëpp ci bés bii kenn ku ne li nga ci soxla yàlla na ko ci suñu borom defal waxtaan nag ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ci bés bi bi mu wootee ñoo ko wuy woon soxna maam Reem mi ngi nii toog moo bëgg a jàkkaarloog ñoom wax ak ñoom ñaanal leen ndax nag woote ñu wuy si la dafa metti ndax temps amatul fenn kon ku wàcc sa temps tuuti rek fanweeri minute ñëw wuy si la rek amoo fayam war nga koo gërëm waaw soxna maam Rem. asalaamaaleykum. soxna maam Rem nee na asalaamaaleykum wa soxna maam na mi ngi sant ñi nga xam ne ñoo ñëw ci bis bi mbokki taaliba yi ak mbokki boppam yi ak xaritam yi ak wëlëreem yi. nee na mi ngi sant taaliba yi baayam yi nga xam ne. Bob ba bis bi tambalé ba neug ni kala dañi ñew di diso ak mom di waxtaan ak mom lu mu soxla lu nekk ñu nekk ja goor ak jigen mag ak ndaw nag nee na mi ngi sant neena mi ngi sant kër gi ndax nañ ci bis bi lool bis bi ñor na leen bob ba neug ni kenn dem kenn dikut ñepp dañoo tok rek li jagal bis bi rek ci lañ nekk ci suba ba neug ni ku ci Amina Fall ak soxna sumbake mi nga xamne yum pañam la soxna mam Maram ak soxna Kiné Kébé ak soxna Ndey Xadi Mbàkke doomi ndeyam ak soxna Maam Maram Mbàkke ak soxna ummi mi nga xam ne rakkam la tubaarkàlla moom sëriñ Xaadim Mbàkke ak soxna Marème Silla soxna xari penn soxna Ndey Faatu di sant soxna maam bu sa yaayam di sant sëriñ Xaadim sëñ Seexuna Silla mii ci kër gi sant soxna momi Fall mi nga xamne negam lañ tok ni di waxtaan tubaarkaala nee neena mi ngi leen di ñaanal bis bi dal liñ ci sakku rek ak wa daru salam ba wut ken ak mbollem ku yaakar sëriñ Soy bu rek soxna maam marem neena mi ngi lay ñaanal li nga sakku ci bis bi yalla na suñu borom defal ba defal lu kawé sa ndort loolu la neewon na leen ko wax. ak ak Mbène job ak soxna mben job ak ya mben ya mben sambu ak mben sambu do nga yi nga xamna ño nek ci kër gi. nee na mi ngi ñaanal ñëpp nag waaw di ñaan nag aajo ju mu fi indi nee na képp képp ku fi indi ajo daal boo ñibbee yàlla boo ci gisati dara yàlla lépp faju ci barkeb sëñ sooy bu mi ngi leen koy ñaanal nee na ci barkeb weeru koor yi barkeb sëñ sooy bu nee na suñu borom faj aajo yëpp yëpp yëpp ku fi ñibbi daal andi fi ku ñëw andi njàqare daal boo ñibbee yàlla boo ci gisati dara ku fi ñàkk tamit boo ñibbee yàlla nga am ba faw ne mi ngi ñaanal nag sëriñ Seex say mu yàgg fi lool te wér na nga ne biig ñoo nga toog ca wetam muy waxtaan ak moom man mii maa ciy seere sëñ seex Say la muy xat-xat ba ñëwee bañ ñu ko soxna Marème ma lay laaj daa di wàññeeku ñëw toog maa di wax ak moom ñun ñëpp ñu toog ay magam yu góor bëgg ko ay bàjjanam bëgg ko sëñ Jili sëñ Laat sëñ Xaadam ñoom ñëpp ay xaritam lañ ak i bàjjanam mi ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp soxna Maami Mbàkke mi ngi koy ñaanal nee na nee na mi ngi ñaanal ñëpp bawut kenn yàlla nañ ko teewaat ne ay déwén télé bii nag yokk ba yëg nag moom it ba buy ñëwaat Anda ki bu maga maga mag bo xamne dama nan ana ñu doon film daaw ñu na ñoy borom kat kat ye ci barkep seigne soye bu mbacke barkep seigne soye bu tu barka la jere gene def soxna momi sen la won daru salam eh, ana alihi wa bi al ijab sa'altuha bil mustafa khair al anam wa aubati ila dar salam سألتها بالمصطفى خير الأنام تهجيل أوبتي إلى دار سلام أسألها لها صلاة والسلام في كل موضع وفي دار سلام ناجيتها وهو الحفيظ والسلام وخدهاني إلى دار سلام نويت سكرها بالمداد والقلام والقلب والجسد في دار سلام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني توبا وفي دار سلام لك دار سلام ربي وتوبا ليكن ربي فيهما سامداني اجعل سلامة تدوم يا سلام لي وللهيال في màggal maam Seex Anta borom daaru salaam ijaxal salaamatan ta doom yaa salaam liya walil iya la fit daari salaam ijaxal salaamatan ta doom yaa salaam liya walil iya la fit daari salaam liftah wa ruddani ila daari salaam wa bin fay naasa jamiha yaa salaam يسرم طالبي في دار السلام وحيثما مكس إنك سلام daaru salaam du fenn tey ku fa ñëw xam nga loolu tey Serigne Bamba ko sañ muy lu rëy jox rakkam ja muy këram